non réellement c'est mon avis hypoglycémie ah d'accord ah, donc merci merci merci pour la précision voilà donc <laughs> merci hypoglycémie ko xam ne maanaam amul benn dextro bu mm. ndaw en 10 minutes on peut vous faire votre dextro d'accord merci mm. dextro boobu noonu ah, sa sako d'accord mais voilà léegi nag boo naanulee aussi sa tension day wàcc mm-hmm. sans compter manque de protéines yi ma la doon wax bien sûr bien léegi protéines yooyu tamit da gis sa sa yaram day dem da maigrir euh, aussitôt moo tax boo génnee si réanimation boobu sax balaa ngay génn vraiment mhm. da nga réanimation ñu di la réhabi parce que biir bu gëj lekk lekk rek boo ci mhm. dugalee lekk rek mën nga rey nit ki waaw <laughs> je hmm? kooku ñu ngi ko seetlu woon si les les les la mhm. booy xale daan ñëw complètement famine yi nga bëgg leen jox lekk léegi Euh, lekk bi moo leen di rey sax. Oh. moo tax c'est très compliqué vraiment. Ouais, la santé bu manqué c'est mauvais bu ëppee c'est mauvais. mais mais moo tax c'est. maintenant par rapport à ce qui se passe actuellement. est-ce que mënuñu utiliser des voies et moyens pour moom mi nga xam ne moo ngi ci xiifal. mais mu mu dakkal ko sachant que. ak ak wax <laughs> ah mais d'après li kan wax tamit moom man ce que je voulais savoir d'abord quels sont les délits que tu reconnais qu'il non ah, man <laughs> non man les magistrats. <laughs> Ouais. tous les magistrats ont enlevé tout ce qu'on lui impose. ah tu as violé ñu bëgg la yóbbu di la dóor di la dóor ci yoon bi toj sa oto sorti la ay produits et un magistrat sort qu'il n'y a pas eu de viol un magistrat sort qu'il n'y a pas eu de menace. Mhm. kooku vraiment jeexoon na. waay pour man jeexoon na bu ñu bëggee jàmm jeexoon na bu yàgg. léegi léegi on t'accuse d'être corruption terroriste. bon c'est vrai que c'est un terme euh, très énorme qui depuis l'attentat de New York là que les oui. Américains oui. nos chez nos, nos de pensée ont décidé que le terrorisme est la pire des euh, des, des, des crimes hein quand des Palestiniens défendent leurs droits on les appelle des terroristes alors que les Français ont été terroristes quand les Français luttaient contre les Allemands C'était des terroristes. <laughs> des terroristes. Absolument. Hein? Quand Mandela luttait contre la l'apartheid c'était un terroriste moo tax euh, ñi ëpp doole. Mhm. toujours ñooy wax gis ngeen léegi la guerre de euh, Hamas là. Mhm. mais Hamas est un terroriste et tous les journalistes euh, francophiles wala qui appartiennent aussi heureusement ou malheureusement à certaines bon je dis pas une race c'est dommage qu'ils en fassent une race alors que c'est une religion. oui hein? être juif c'est pas une race c'est une religion. Hein? il y a les Éthiopiens qui sont noirs qui sont qui sont des des juifs. donc oui mais dem nañu ñoom ba euh, ce qu'on appelle la race euh, la race juive les Allemands aussi les avaient aidés en disant les juifs on devait leur faire ça si malheureusement li leen juif yi di leen euh, nazi yi doon def ñu bëgg ko beneen xeet vraiment doy na waar doy na mais nag le problème c'est est qu'est-ce qu'il a fait léegi actuellement qu'est-ce qu'il a fait un magistrat a dit que qu'il ne doit même pas être rayé parce qu'il n'a encore rien fait Oui. Il n'a aucune condamnation, à part euh, les 200 millions pour avoir dit que... Que ce n'est pas définitif. Euh, pas euh, définitif. Oh, bon, mais moi, j'ai créé, créé, créé, le PRODOC. Hein, oui, ah, comme oui. PRODOC, oui. PRODOC, PRODOC. PRODOC, oui. PRODOC. Euh. Ah, C'est des gens qui ont investi leur argent à aider les paysans à, à travailler. Prodac c'était c'était destiné à qui <laughs> voilà oui. donc l'a remplacé Prodoc c'est des c'est des qui mettent de l'argent dans le dans l'agriculture dans l'agriculture mais Cheikh venons-en ak interpellation bi nga xamante ne moom moom la la docteur def déjà si on revient déjà li nga xam moo moo moo indi coow li yëpp mais man dama bëgg quand même ñu des ci man situation bi nga xam ne man moom la nekkee parce que man ba léegi man je n'arrive pas a comprendre nga xeex pendant plusieurs mois nga jëlee ci jafe-jafe santé

pour le moment il y a pas de condamnation définitive euh, bi nga xamante ni lal nañ ko ci ndodd Ousmane Sonko comme il y a pas de condamnation définitive nag mënuñu sukkandiku si benn condamnation pour xañ ko li nga xamante ni mooy ak xam walla yeleefam loolu moom il faut il faut il faut mu leer léegi nag malheureusement comme je t'ai dit euh, les les les de droit bon ñoom ñu ngi occuper la place publique bon euh, tantôt les avis xam nga des uns contredisent les autres kenn xamul. Mhm. bon alors que man dama jàpp ne une loi bien écrite elle est claire pour tout le monde. Mhm. man sama xalaat loolu la mais loi boo xamante ni dafa am ay interprétation yu bëri. dama di dis finalement bon euh, nos députés à quoi ils nous à l'Assemblée nationale il faut écrire des lois que parce que nul n'est censé ignorer la loi. <laughs> maintenant quand la loi euh, à, une multitude d'interprétations. Mhm. finalement <laughs> Euh, comment dire le sénégalais lambda peut ne pas retrouver mhm. mën na jàpp ne lii mooy loi bi ndekete loi bi leneen lay wax donc vraiment il faut euh, si côté boobu noonu ñu lever équivoque yooyu yëpp mais yooyu yëpp aussi day dénoter un peu tentative n'est-ce pas de manipulation yi nga xamante ni ñenn ñi nekkee nañ ko mhm. euh, en en l'occurrence man déglu naa fi plusieurs fois notre ex ministre ou ancien ministre de de de la justice Ismaïla Madior Fall toog wax des ministre des affaires étrangères des spécialistes oui ah, grand juriste ah, mais jox ko kaskam kasketam ministre des affaires étrangères ah, bon léegi quand euh, ay juriste yu mag génn ne ko non monsieur Ismaïla Madior Fall d'accord ñu ak yow ñun la ñu jàng ak la nga jàng benn la mais yow li ngay wax ni ñun du loolu lañ jàng donc malheureusement donc euh, mu tenir ay nit ki contumax la du contumax jàpp nañ la est-ce que kii bi daanu na contumace bi daanu na daanuwul après c'est c'est compliqué pourtant moom moo ñu ne woon en dix jours bu ñu la jàppee tu as dix jours pour faire appel waxul les juristes juristes yu may déglu dañu ne doo waroo différencier fu yow loi bi différencier yow yaay différencier di ne ki bu dee dañu la jàppee telle condition wala telle condition mais dañoo ne bu ñu la jàppee si dix jours bu bu bu ñu la euh, euh, pour éviter d'abord pour lan la pour éviter prescription am maanaam ñu dem ba ñu la mën a toppati moo tax dañ koy. dañ lay juger ah tëxañ teg noonu xaar pour mm-hmm. tamit mm-hmm. Euh, action judiciaire mën a continuer léegi ginnaaw loolu am na daan ngeen ko nit ki ngeen jàpp ko même su nekkoon tey Ousmane Sonko dafa génn ñu raafale ko rek. raafal am ñu jàpp ko mais jeex na parce que y' a pas de Ousmane Sonko la logique quand même quoi. parce la bon sens. léegi nag waaw mais même bu amee dans tous les tey gis nañ ne Ousmane Sonko amul en tout cas une condamnation définitive loolu moom euh, Sénégalais yëpp et puis les juristes sont euh, d' par rapport à hmm. léegi nag Ousmane Sonko effectivement il bi nga xamante ni situation bu bu jafe la. Hmm. Euh, situation la boo xamante ni man li ma wax dafa simple ah dama ne Ousmane Sonko bés bu ko yàlla mayoon mu génne situation bii nii. je pense qu'il faut même pas organiser des élections quoi ou bien on va organiser des élections pour la forme parce que. Euh, day euh, gagner quoi man c'est ce que je me dis ah s'il s'il s'en sort. Mm-hmm. Euh, bon. avant avant ñuy dem 2024 bii nii Ousmane Sonko day gagner élection yi. donc de ce fait bon c'est ça veut dire su ma waxee noonu mooy c'est très compliqué actuellement. Mm-hmm. pour mu génn si mais nag. mais nag bon gis nañ fi tamit ay ay mbir yoo xamante ni euh, am na yoo xamante ni mën na tax ñenn ñu dundee yaakaar parce que aussi on a cru à un moment donné euh, au niveau de Ziguinchor au niveau du tribunal de Ziguinchor mm-hmm. donc euh, recours boobu ñu ay avocat am dugaloon pour radiation mm-hmm. ñëpp doon yaakaar ne juge Sabassi fay day ñëw rek ne Ousmane Sonko mënul bokk mm-hmm. mais il l'a rétabli dans ses droits même si Malheureusement, jusqu'à ah, présent, il y a, voilà, bon, on ne veut pas, mettre euh, en, application peut-être cette décision-là. Mais Ousmane Sonko, man avant tout, ce qu'il faut, il faut peut-être oublier tout le reste pour le moment. Il faut se préserver, il faut faire de telle sorte que sa santé soit préservée. Ba nga xamante ni dara du ko jot dara du ko dal parce que Ousmane Sonko ko dara dalee personne n'y gagnera muy régime bi nekk fii muy la justice parce que le propre de la justice c'est pas c'est pas de laisser les gens mourir en prison c'est pas de laisser les gens mettre en danger leur vie c'est de rendre justice mais rendre justice du vengeance rendre justice c'est pour nit ki dañuy ne nit ki par exemple yow nga yor sa permis ngay dawal sa oto nga jékki-jékki respecté ne la yow respecté code de la route te da ngay dawal tu mets la vie tout le monde en danger yow dañ lay dañ waat maanaam dañ lay defaraat mm-hmm. maanaam boo génnee sa kër ñu jàpp la yàlla tere yóbbu la prison mm-hmm. prison c'est pour la correction on dit maison d'arrêt et de correction mais on doit tout corriger suñ la corriger waxuma ñu ñu lay dóor wala torturer la non mais dañ la war a corriger def de telle sorte que yow jikko yu boobu noonu nga defoon wala acte yooyu nga amoon ba def ko ba mu indi prison soo génnee doo ko def mais su nekkee da ngay yóbbu nit ki yàqu ko finalement c'est pas ça le propre de la prison c'est pas ça le propre de, la justice justice da defaraat pour nga mën a bu ñu la yóbbee prison nga defaru nga mën a génn ñëwaat dund ci société bi de façon normale ba société bi du am benn déséquilibre d'accord noonu laa gisee maintenant docteur euh, fi may jeexalee ak euh, mbiri Ousmane Sonko tamit bëgg na bëgg naa quand ñu ñu xaw a clore chapitre boobu par rapport ak ni nga xamante ne tey euh, moom moom la daal di nekkee ci maanaam ci ci ci ci wér-gu-yaram léegi ci ngëneel pour mu jógee fi mu nekk lan nga jàpp ne moo war a woy mu arrêté grève de la fin bi une bonne fois pour toutes wala ñu yeneen solution donc ñun bu arrêté grève de la faim fu mu toll ba ñuy wax ay comment ay perte de connaissance Euh, y aura la réabilitation mm-hmm. parce que danaan say cër nga xam ne dañ daan lekk dañ daan naan ax di kii bu demee ba. Euh, ba tëju commencé tëju laa tëju. Mm-hmm. Euh, il faut tout un pour le remettre. parce que loolu la ñun bor doon wax sax dañu ne defoon soixante douze jours en réanimation. Mm-hmm. am temps yooyu dañuy muy dañu am wax ne lu muy def foofu ça fait plus de soixante douze heures. soixante douze jours. bon mais c'est ce que je vous dis même boo paree sa grève de la faim. am ne woon sax il coûte cher à l'État du Sénégal. voilà donc donc moo tax bu ñu génnee fee si bii encore. même boo arrêté la grève de la faim du mën a dem këram euh, comme ça à moins qu'il Euh, il a déjà un ministère de la santé son ministère de la santé soit derrière pour le pour l'accompagner waaw sama assistance non non il a il a non il a son cabinet déjà d'accord il a son cabinet complet ah man daal wax bi mu nekk souvent il avait ses médecins personnels ses spécialistes c'est mhm. tout ñun vraiment on, on la truc et je vous dis en plus il y a pas que le ministère de soins c'est que la prise en charge même euh, de tous les membres de Sénégalais wax parce que mon frère a reçu une balle euh, pendant les manifestations ah. c'est lui qui a payé c'est lui c'est Pastef qui a payé un million neuf cent ñu ngi c'est lui qui c'est lui qui paye mmh. daanaa prison de temps en temps pour aider les jeunes là au côté médical mmh. il y a des heures où je mais lu ñuy lekk mmh. non non t'inquiète pas euh, non Sonko la ñuy wax mais pas waa Pastef lu ñuy lekk ñooy andi añ ñooy andi reer ñooy andi ndékki mm-hmm. te ku ci malade tamit ñoo lay génn ba foofu yóbbu la dans les cabinets de ton de fi nga bëgg mm-hmm. ah dañuy wax ne souvent rek la ñu ñëw la capacité du ñëw comment rek mu yóbbu dans leen mu jël leen ñu wér donc ce qui fait que aussi vraiment euh, mu ne la laa ko jëkk a bind mm-hmm. il faut qu'il arrête cette grève la faim boo nekkee ak ñoo xam ne euh, lii la nar a dal loolu la ñu bëgg Hmm? parce que est-ce ah, que ce qu'il a en face de lui c'est Sonko ne doit plus être là on a parlé de l'expatrié de de l'expatrié de l'exilé hmm. on a parlé de trucs bon hmm. mais euh, une bonne personnalité de, du parti a dit qu'on sait que si Sonko sort il va gagner les élections donc ça nous arrange pas donc euh, <laughs> c'est soit il reste en prison on va trouver des prétextes gis ngeen prétextes après le viol après le truc après c'était un vol de portable. oui une personnalité comme ça qu'au <laughs> Sénégal ñuy dégg ne au Sénégal on a volé un portable et après on a habillé du mmh, terrorisme et du salafisme et du truc. Mais non, euh, je crois que pourquoi mais n'oubliez pas que la loi se fait au nom du peuple. Ça ne se fait pas au nom d'un gouvernement.